www.sangatv.com. ñu seeti Macky Sall lan lay tontu. Macky affaire bi yow. Macky jëf jara jëf li ma fi mën a dindi lu lenn lu dul yàlla laaj bi dafa bëri question yi dafa bëri j'ouvre le débat avec les journalistes pour question yi la dëgg la bonjour monsieur le président parce que dama war a voyager Russie très rapidement bonjour monsieur le président bonjour bonjour ok monsieur le président ñu ngi lay nuyu dañu dégg procès Khalifa Sall bi Khalifa Sall génn def ay révélation yu rëy yu fracassante nee na maître Abdoulaye Wade lekk na ci caisse d'avance bi yow mi nga xam ne yaay président Macky Sall lekk nga ci caisse d'avance bi looy tontu si loolu. sa kan rajo ak sa kan télévision. vous êtes Ahmed Aïdara la bu Sen TV. ah man ah, damaa xam ne monsieur le président yow tamit man la war a revue de presse bu rëy bi ci réew mi. d' accord jërëjëf. maa ngi leen di nuyu gërëm di sant. Khalifa Sall bu demee ba cité ma ci loo xam ne. da ko bëgg a cité pour taqal ma war a taqal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi. mooy wane nag ñoom seen ay ambition mooy jéem a déstabiliser stabilité réew mi je pense que boo dem bay tudd nit ci loo xam ne affaire luubal xaalis la war nga xool bu baax ñi ngay wax man affaire justice dafa indépendant ñoom ñooy jugé man yóbbu ma ko porte plainte wu ma ko du Macky Sall moo porte plante Khalifa Sall c' est l' état du Sénégal moo saytu xool ne yow naa ñu ma àndal ba léegi may ma tontu s'il vous plaît loolu kon bu amee loo xam ne dafa am ci Sénégal mu tudd tur su ma neexee ma porte plainte ko pour diffamation mais j'ai pas le temps de gérer des choses yoo xam ne dafay attarder Sénégal mhm. on est dans l'émergence on n'a pas le temps na def affaire ak justice te bañ ma ci tudd sama digganteeg nag ay caisse d'avance ak caisse de retrait ak caisse de reliquat loolu sama yoon nekku si ok euh, monsieur le président comme ñoom ñi nga xam ne moom ñi wax ne procès bi procès politique la naka nga ko déggee mais nan la nekkee est-ce que parti APR moom moo président moom moo porte plainte parti bu fekkoon ne APR moo porte plainte li nga xam ne moom mooy parti socialiste war a Khalifa Sall ñu ne c'est un procès politique mais c'est l'état du Sénégal la justice est indépendante qu'on se dise la vérité il faut pas utiliser certains termes pour utiliser jouer dans la mentalité des Sénégalais on n'est pas des des des, des cons il faut pas suivre l'ordre des idées mais l'ordre du monde adduna bi ni muy doxalee nan nga war a doxalee. kon kan mooy nampal ci journaliste yi fii kan la. waaw journaliste mais monsieur le président ban jàngat am ci procès bi ak fan nga yaakaar ne du ma ci mën a annoncer parce que c'est c'est l'état du Sénégal l'état du Sénégal c'est pas Macky c'est un démembrement de de des ministères qui gère ce dossier particulièrement le ministre de la justice. qui gère ce dossier. mais si c'est la justice n'est pas indépendante. damay laaj est-ce que réellement non la justice sénégalaise n'est pas indépendante. d'accord monsieur le président maa ngi jégalu. bu baax a baax maa ngi jégalu. mais damay laaj ma doore. damay laaj mooy foto nga foto lu leer. damay laaj wax ndax na wala amul. mais yow xoolal ndax ndax justice indépendant wala c'est pas indépendant. wax seen keneen question ma dem parce que ah. doole ma jaxase ak àdduna dans neuf mois élection day am. te bëgguma fi xeex. monsieur le président li may mujjee mooy est-ce que mën nañoo am yaakaar ne dina fekk Khalifa Sall génn génn bu mën a nekk. waaw mais man tëjuma Khalifa Sall da nga gis caabi bi ma tëjee Khalifa Sall est-ce que dama téye Khalifa Sall tëj ko. est-ce que dama ko tëj mais justice la quand même affaire avance mi wax noonu bu ma taxalee war a mu taxal keneen ki mu taxal ñun ay journaliste am nañ ci ay dégg-dégg ñu ne caisse d'avance bi wax ne dañ ci dañ ciy jël yow nee nañ ba nga avant dañu wax ne Maître Abdoulaye Wade jël na ci kan yow la ñu wax waaw dañ ne bi nga koy jël est-ce que nekkul ne sarax bu ñu. mais man Abdoulaye Wade laa tudd war a Macky Sall. Macky président Macky Sall. ngeen laaj bu ko nangoo moo ko nangu mais man est-ce que dama la wax ne man ko nangu. dañ ne sarax la boo sarax la est xam nga a a certaines choses yoo xam ne tu commences à déborder. da nga war a yem ci li nga ne moom lañ la yemloo il faut pas ngay jouer la conscience des sénégalais day yomb yow Ahmed tu commences à déborder. monsieur il faut respecter les sénégalais dama say morom rek ñoo fi revue de presse non dama say morom ñoo fi revue de presse mais dañuy yem fu ñuy yem tu débordes dama tu débordes sa position daf ko war a leeral munoo ma yàqal un journaliste qui a un mouvement Guédiawaye laa bokk loolu mooy foo ko teg dama bisimilah bismillah bismillah